Et ce personnel qualifié a reçu la bonne formation. Mhm. Et malheureusement, c'est ce que je dis souvent dans notre système, c'est ce que nous disait notre professeur de psychologie, Bini Diang méfiez-vous de l'effet blouse blanche. Actuellement, nous avons des étudiants uniformés qui euh, licence en sciences infirmières et obstétricales. Mais l'effet blouse blanche, mooy nit ki ñëw fait ki sol blouse parce que ki sol blouse souvent c'est dafa nekk un privilégié parce que da nga ñëw disque ce sa soxla léegi nag maintenant su nekkee amul assise bi mu war a am wala formation bi mu am pour un rien fait déraper ñuy wax tuddee ko l'effet blouse blanche je vous rappelle tout à l'heure bi ñuy laata euh, émission bi am ci koo xamante bi ñu ma gis professeur wax ko mu ni ma léeg-léeg bu ñu dañuy japp ay demi-dieu parce que lolu dañoo dañoo ñew mottali personnel qualifié alors que duñ personnel qualifié te loolu responsabilité état daf ci jouer ba mu ëpp doole. personnel qualifié. dans le dans le système. oui il y a ce qu'on appelle le personnel qualifié. Mm-hmm. mooy les médecins. oui les infirmiers. oui les techniciens supérieurs. les sages-femmes. et actuellement les assistants infirmiers d'État. Mm-hmm. ñooñu avons le personnel qualifié. Mm-hmm. tout le reste maintenant c'est un personnel de soutien. le reste mooy ñam les aides. les filles de salle les garçons de salle ñooñu ñëpp personnel de soutien la dans le domaine de la santé. pourquoi il y a rien qui. par exemple si, si. permet y Il y a un code. y a ñu c'est là où je disais que loolu mooy responsabilité état. Mhm. par par actuellement boo demee Europe boo duggee hôpital rek tak da ngay xam qui est qui qui fait quoi. alors que si boo nous te responsabilité état là. pour nous identifier parce que si on ko identifier il faut que day daal di tegu ci nous en tant que partenaires, nous devons fi avec à pour ce qu'on appelle les fiches de poste mooy corps de métier bu nous ñu defal fiche pour wax ne peut pas sa mais état appliquer vous savez pourquoi parce que beaucoup ko appliquer système bi du dox parce que le personnel qualifié bi nga war pas am appliquer Si vous avez fait ko defee fiche de euh, poste pour infirmier mhm kenen koo ko bëgg a liggéeyloo te nekkul infirmier xamni ne ci bir bu ko ci jëyee féké mën nañ ko ci gëj danaan du ko laal mhm. looy résultat des courses c'est quoi nga bëgg am ben infirmier wala 5 infirmiers pour 20 malades 25 malades fofu le mal bi commencé et nous l'avons dit par rapport à son négociation je ne sais pas ndax dinañ ci dugg mais lool yëpp dafa nekk un ensemble bo xamanteni boko boo lepp dañ koy def ci benn fourre-tout et je le dis souvent aux, aux étudiants en leur disant que li ci metti mooy bo defee djeyé c'est tout le corps day yóbbaale dañ naan cœur, docteur duñ baye kenn mm-hmm. la preuve djey yi ñuy gis ci structure yi wala yenn problème yi dañ ne bama démé j'ai été mal reçu parce que qui lay recevoir xeyna amul formation bi war pour mu mën recevoir parce que dañ wax souvent que ni hôpital dafa nek milieu bo xamanteni ni fi ñëw rek à 40 dafa wàññeeku psychologiquement avant que ñu xamni li lii dal wala lële moo ko dal mais kooku bu ñëwee yow mi nga xamante ni yaay personne qualifié euh, personnel qualifié bi do xaar ci mom nga ni ki ni meun nuyoo rafet na ni mën nuyoo rafetul ki fa non non par contre keneen meun na xalaat loolu nga ñew taxaw mu naan xanaa balaa nga waxul nga nuyo foo xam nga manquement yoyu maintenant boko dajale day nek un problème au niveau du système day nek un problème au niveau du système ce qui fait que dañuy daal di jël solol bu mi ñepp mhm. je disais que maintenant liñ doon dem bu ñëk mooy bala nga dugg ci métier surtout dans les formations dañ lay def la ay tests psychosomatiques di la poser des questions di la def ñu xam ne psychologiquement attan na li wala attanul la et aussi dafa am lu ñuy tuddee éducation de base dafa am ci nit man bi may ñëw hôpital en 95 am na koo xam te sama promotionnaire la ñoo fa ñëwandoo mais bi ñu dawalee quelque temps dafa ma woo mu ni moi je ne suis pas fait pour la santé man ko lu tax mu parce que am na yu may gis mënuma ko tolérer mais il a raison te loolu c'est positif parce que kooku bu nekkoon gagne-pain rek moo ko fa xaaroon moo ko fa moo ko fa bàyyi woon day continuer ay ay problème di am mais def na xam lu may def damay dem ENA école nationale des administrateurs mu génn légui mu ci commandement territorial préfet la mhm. et il a été tu as vu donc c'est pour dire que nitu hôpital dafa am mhm. et dans notre milieu mën nañ leen di duut baaraan ne nitu hôpital la ki su fi wax nako légui il y a des gens bo doon pratiquer amuñu guddé amuñu bëccëg parce que sacerdoce la sacerdoce moy lo lo lo def parce que amour la xamoo heure buñ la woo xamoo xaalis buñ la fay xamoo xamoo xamoo par contre bu dee nag loo yóbbu kër ga à la fa mais mom lañu gis actuellement et c'est dommage. Mm. da ngay ñëw nga am fukki liggéey ak juróom-ñaar te ci hôpital bi suba yaa ngi ci clinique bi ginnaaw suba yaa ngi fële su ko defee ngay daw li nga war a ci malade bi xëy na ko def ba mu jeex te loolu li manque de personnel qualifié. te mm. loolu état da ci am rôle bu euh, da ci am par rapport à ça parce que dafa am lu ñuy tuddee carte sanitaire carte sanitaire dafa wax chaque établissement chaque nombre de lits war na corps de métier fa war a nekk war na nombre de personnes yi fa war a liggéey tey amul benn hôpital bu ko matal et donc c'est de choses yoo xamante ni foofu la mal bi nekk profondément et je dis que nous foofu la ñuy invité état par rapport ak personnel bi maintenant avant ñu ñëw naa ci infrastructure yi avant ñu ñëw ci équipement yeeg tout ça là mm-hmm. très important muy base bi euh, balaa ma ñëw ci yow Aliou ñu dem ci euh, wa nitu deug dañ leen di chaque jour ngeen di am ay euh, ñaxtu yu demee ni mm-hmm. c'est-à-dire li nga xamné moy ni ñuy traité sénégalais ci hôpitaux yi mais li docteur wax légui jarna naa xel muy accueil bi déjà parce que problème sénégalais yu bari la docteur néna boy booy ñëw da ngay wañé ko à 40 c'est normal parce que yaangi ngi ñëw ak sa métit yaangi ngi ñëw ak sa jaaxle ndax xamago lan moo la dal ak naka lañ lay fajee mu dess accueil bi. léegi accueil bi ña fay ña nga fay fekk dañuy nekk ñoo xam ne moom euh, moom moom ñu na yam dangay ngay wax ak ñoom ñoom lañ lay tontoo amaana am na nu ñuy def sax dañ lay yokk métit euh, ñu ñëw foofu tuuti laataa ñuy dugg euh, ci li nga xam ne moom mooy man li manqué ci biir hôpitaux yi côté Matos. ok par rapport ak accueil bi gis nga loolu c'est un problème de mentalité ak éducation. ñun mm-hmm. Sénégal suñu problème déggantaan ja loolu quoi amuñ éducation citoyenne on n'est pas des patriotes.

mais bu dee doomu baaroola bi la bu ñé nga xamné fi mëno fi am dara moy lool lay tout à l'heure sofi Sophie mi ngi wax ci problème de négligence deug la man je sais pas d'être sen avocat wala les médecins mais tamit ñom ils sont négligés aussi. waaw yàggul dara ma ngi dégg hôpital fan ça ça doit faire près de semaine problème ndox motax journée bi ñi ñu ñi ñu ki kii opéré yëpp dañ ko dañ ko dañ ko pousse. parce que amul ndox ndox mo fa amul woon waaw. te gis nga hôpital Dakar mu doy war rek. man man nekkoon naa Ziguinchor def naa fa trois ans barki Serigne Touba la suñu kër ma feebar toog suñu kër moo ma gënal ma dem hôpital boo dugg hôpital rek décor bi rek yow xam nga ne fii mënuñ la faj parce que ñax yi laa la wax ñax yi da lay suut ne la santé ngay wax hygiène nga dugg gis ñax yoo xam ne ñoo la suut saal tilim na tilim benn xeet tilim boo xam ne sa sa sa feebar bu fa yokkuwul du fa fajoo ñaa ngi wax tout à l'heure que ñi ñi accouché di dee mais dama ci région ay Kolda ay Ziguinchor nga xool. Mm-hmm, mm-hmm. nga accouché normal mucc miracle la foofu miracle la miracle mais loolu le problème à ah, ah, kii tey jii ak budget état ñu ne ñu ngi koy évalué budget santé ñu ngi koy évalué ci deux cent trente cinq milliards et quelques presque deux cent trente six milliards. Mm. ah loolu mënoo mënoo am les les matériels qu'il pour mën a. le minimum par rapport ak problème bi am Tiwaawan lakk bi am foofu mais directeur de dafa ñaata lay jar weccit la. Uh-huh. yeggul cinquante mille. kii yëpp dañ ko waroon dañ bi ko daloon nañu ba pare. léegi nag négligence boobu dëgg la des fois médecin mën na négligent comme ni ñu mais des tam ñoom ils sont aussi parce que même ñoom ci conditions yi nga xam ne ñoom ci lañ dans de bonnes conditions pour ñu liggéey. Uh-huh. tey boo amee sa sa jour de football nga ne ko demal football mais parlons un peu ci passion bi docteur wax euh, parce que d'accord c'est-à-dire liñ leen place biñ mais docteur passion bi leen jital mom ak li war dañ koy def. Ah, mhm. la problème mhm. la. problème de citoyenneté la. Mhm. ñun la métier bi nga exercer pour yow apogée bi mooy tey am nga am nga grade docteur pour yow loolu mooy apogée bi quoi yow yow instant yow après yow ci au top yow nekk nga docteur. Mhm. mais c' est pas ça mais c'est biiru ngay nekk docteur mission yi ngay accomplir man laa di ngay man laa di ngay sauver boo dem ba pare. Mhm. ci ngay roog a xam ne ndax yow sa mission accomplir nga ou pas. mais du pas que da nga accéder ci accéder nga ci kii bi rek yow sa jaan wàcc na loolu ko mën nga dem ba ne.